ànd ak moom ay at xam nga fi mu ne nii kenn du leen wax kan mooy ko Kosso Mbacke kan mooy waajuram fan la bokk waaye am na tuutànk bu ñëw tey màggal si tey xam sëriñ bi tey waaye Serigne ko sore la xam waaye xamul kan mooy waajuram xamul fan fan la bokk xamul fan la jaar nangam nangam kon nag ndem loolu nañ mën a yaatalee nañ mën a comprendre tuutànk boobu sàkkantuma laa nag ñun suñu symbole muy yoon tukki géej gii Serigne Touba rek ko am ñun rek ñoo ko am la Serigne Fall doon wax kii si baraag bi ñun rek ñoo ko am wasalaam waaye tukki géej gi doo ko waxal kenn sëriñ Touba rek nga koy waxal yow yaa ko wax ne sëñ Moussa Ka moo ko wax. kon loolu nañ koy fàttali bu ko defee waxtaankat yi nañ koy wax wax ñi nga xamante ne nag ñooy boroom xam-xam yu mag yi moom nañ bàyyi sëriñ beeg gaa yu baax wax ak ñoom. waaye ñun dongo yi nga xam tuuti géej gi dañ ko war di yaatal nit ñi di ko xam nañ koy fàttali li wax ne kontaan nañ lool mbokk taalibe yi képp koo xam yaa ngi si dal bi na xam ni ku baax ki génn na mook sëñ baara génn nañ bu ko defee ñu teew ñu jàng xatmu bi fu waay nekk nga wax amin na ma ko fàttalee woon képp koo xam nekkoo si waañ bi nekkoo si waajal ndékki yi na nga yor kurus di tudd yàlla wala nga yor xasida di di di di tagg yonent bi kon bu ko defee baax ba jox micro bi bu ko defee mu jàng xatmi bi ñun ñëpp ñu teewlu na waaw kon sëriñ bi day ñëw fii bu ko defee ñu ñu defaraat may ko yoon foofu. kon na ñëpp teewlu ndax sëriñ bi mu ngi ñëw. ne waxtu yi moom moom dafa nekk waxtu bu kéemaane Mbàkke ba tax na euh, day day dugg si jalaal ak jaman ndax boo fàttelee lañ fàttalikoo li ñu doon def sëriñ bi rek day kéemaane loolu mbàkke ndax gis nañ jëmb ba ngay jóg yëg-yëg bi ñu am si yow ba ngay jóg di wax borom daaru ba muy ñëw bis bob bu la fekkoon nga ànd ak moom ñun loolu lañ yëgoon si yow demb bo gisee ñuy tour xéwal lool lañ yegg ci yow ndax ba nga naan bërit di jog di teewlu mbokk taalibe yi ak bi ngay ñew di jël micro bi mëno yeggali wax ji motax nga demat tok ñun lool xam nañ ko ci yow waye bu ñu xoolaatee xewal yi suñu borom defal Serigne Touba mbacké dañuy dukkat dañuy sante bay dukkat motax dañ lay sant cant googu dañ koy dugalat ci ñaanal la nga yagg fi nga yagg fi lool ta and ak ci barkeeb Cheikhul Khadim yàlla na fi yagg lool ak mboolem ñi liggéey yalla daraje la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbokk talibé nak nga ñaanal leen mbacké ci bisu so bisu maam bi nga ñaanal leen ñu défaru défaru biir défaru biti ba paré nak am xewul yaat ñu ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa lépp lu ñuy jumtu gaay bu ñuy liggéey seigne touba rek yalla nako diwan bi am ba doyal ci daraje la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin mbàkk jërëjëf bismillah ibrahim jox ko xam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 اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما شرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المشلات وكفر بتلاوته عنا الشيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من شهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبصارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه عليه وسلم وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وشائقنا إلى الجنة النعيم اللهم اجعله آنسنا في الوحسة اللهم اجعله أنيسنا في الوحسة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة واعصمنا به من الزيق والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسلب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك زخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا سنغال وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولروح سيدنا وسيلتنا إليك خادم الرسول أحمد بن محمد بن حبيب الله ولأرواح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 يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك باسم شيقنا وسيلتنا آمرنا خادم رسول أحمد بن محمد بن حبيب الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك باسم جدنا شيقنا وسيلتنا إليك خادم رسول يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك عدد ما في علمك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك عدد ما في علمك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ci kàddu yu gàtt gannaaw nuyoo ak ziar ñiy dégg ñëpp di ko tàmbalee ci ñi doon jàng téereb yàlla bi ci suba gi ak mbindi sëriñ bi di nuyu kilifa gi nga xam moo nekk ci barab bi Cheikh Mouhamadou Lamine Ba di nuyu kilifa yi ñuy dégg yépp muy kilifa yi dëkk ci gox bi yëpp di nuyu mboolem gan yi nekk ci dal di tàmbalee suñuy kàddu ci bismillaahi rahmaani yi ci yoor yooru màggal gi di santaat yàlla bu waax cant koo xam ne nu nu ko waxe xeeb ko nu nu ko yéenee xeeb ko nu nu ko jëfe xeeb ko ba moo tax nuy jéem a seet xeeti cantiin yi ya ca gën a kawe nu koy jéem a ràbb ak ya ca gën a sakkan di ko jël di ko jëmale ci suñ borom ci turu Sëriñ Tuuba looloo tax nu taamu baat yi yonent bi sallallahu alayhi wax ni bu ko nit ki waxee sante ko suñ borom dafay wax malaayika yi ñu bind ko ni mu ko waxee waaye mënuñoo bind tuyaabaam ñu bàyyee ko tuyaaba ji moom suñu borom mi nga xam ne laa yaxfaa alayhi shay'un ëllëg mu ne nii la toll muy lafzu yaa rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalaali wajhika wa li azimi sultaanika ma teg ci adada ma fi ilmika bismi shaykhina xaadimi rasul loolu boo ko doon firi ci maanaa ci bis bii nga xam ne Serigne Touba dañu cee woo ngir ñu santale ko yàlla nuy làmb xeeti cantiin yi ci wax xeeti cantiin yi ci jëf moom sëriñ bi jàngal nañu ko ci bernde yi ak yooyu ña nga ca waaye xeeti cantiin yi ci wax yonent bi sallallahu dañu caa jàngal xeeti cantiin yi ca gën a kawe wax ñu façon cant goo xam ne suñu boroom dafa wax ne malaayika yi mënuñoo xayma tuyaaba ji nu mu toll la ñuy def mooy ñu bindee ko na ko ko cant waxee bu ëllëgee suñu borom wone ni dayoo bi fii la toll nu ñëw di jël cant yooyee di ci cant le Sëriñ suñu borom di jël alphase yooyu maanaam muy baat yooyu di ko sante suñu boroom lafzu yooyu nag boo ci firee benn di nga xam ne lu mag a mag la ndax yow suñu boroom lakkal xamdu loolu mooy yaa yeyoo cant waaye maa ngi yëkkati cant di ko yéene jëme ci cant la cant gi nga yeyoo kama yanbaghi li jalaali wajhik na mu yelle ci màggaayu sa jëm yàlla maa ngi lay fas yéene cant na mu yelle ci màggaayu sa jëm wali azimi sultanika ak na mu yelle ci màggaayu sa nguur ak sa pouvoir baat yooyu lay firi ci wolof malayka yi mënuñoo xam nu tuyaabaam tool moo tax bi nu sëriñ bi jàngalee xeeti cant yi ni ñuy jëf na ko yàlla waxe woon waa kër yonent yàlla daawooda ne leen i'malu ala daawooda shukran sant leen ma cant gu nuy jëf cant gu ñuy jëf moom nga jël say ciir jaamo ko yalla tudde ko cant ba nga jël sa alal def ko ci yalla tudde ko cant loolu moy cant gu ñuy jëf waye xam gi yalla xam ne sant da jafé motax mu ne wa khalilun min ibadiya shakur ñu neew ci sama jaam ñi ñoy sant te sax ñoñu muy wax jaam ñi dañu neew ndax ñoñu la wax ne iblis mënul ci ñom dara inna ibadi laysa laka alayhim Sultan, kon bokku ci mbindeef yi yalla jamulo bopam ak ñatax muy wax batu ibadi fofu amna ben ben ben benn benn xat maanaam rëdd wo xamne ñiko ñi ko ba ba dugg ci cercle bari wu te ci biir cercle bobu sax la la ne wax khalilun min ibadi shakur ñu neew ci sama jaam ñi ñoy ay kat bis bi nekkon bis bo xamne serigne bi def na ci ñaar def na ci ñaar bi ko ñetteel mu sant ñu ko ñaar yi mooy alxuruju li xidmati rasul muy génn liggéeyal yi yonent bi sallallahu alayhi bi ko ñaareel mooy shukrulaahi sant yàlla bi ko ñetteel mooy mu digal nu ci ñu sant yàlla bis bi ci la génnoon liggéeyali yonent bi sallallahu alayhi waaye ci bis bi la sant suñ boroom santati ko santati ko ba mu yàgg doyu ci boppam doyu ko ci mu jox ñu ndigalul mu ne nañ ñëw santale ko yàlla mbooloo moomu di jóg di riir di sant te waa kër Daawuda yàlla daneen leen woon ak cant da ngeen koy jëf ñun ñu weesu baatu jóg di ko wax jóg di ko jëf di takki saak di jëm Touba di jàppi nag di yóbbu Touba di takki xar di yóbbu Touba di yanu ay baas di yóbbu Touba di ko jëf ni ko ni ko yàlla digale woon waa kër Daawud nit jóg taxaw fa leen ne bi daal kooku kenn wérantewul ne Iblis mi nga xam ne dafa lancé woon yàlla ne ko dina fexe ba nit ñi duñ sant ka bëgg ñu bàyyi cant googee ci liggéeykati Iblis la bokk. ka bëgg ñuy cant cant googee ci liggéeykati yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bokk mooy Cheikh Ahmadou Bamba dafa am ñoo xam nag seenu ñàkk dégg diine dafa dafa dafa dafa jéggi dayoo. xam nga dégg bruit baax na waaye xam la muy wax da koo gën dégg ko am na benn boroom xam-xam bu bokk ci almaturidi bu ma de gis démb mu daan leen ci jël bu rëy rëy ndax dafa am benn waay bu mu ja bu mu bu mu bu mu bu mu di séqal ay discussion ci ñi nga xam ne dañoo gëm ne jàng alxuraan jàngal ko ku génn àddina bi daala dégg nga mu ni ko yonent bi sallallahu moo wax ne iqra'u yaasin ala mawtaakum na ngeen jàng surut yaasin ci seen way faatu wahabiya ba ne ko wahabiya damay jaar ci tur yi ba ne ko al muxtadar la yonent bi wax muxtadarikum maanaam ñii sukuraat mu ne ko yonent bi baatu mawtaakum la jëfandikoo mawtaakum ku dee kay ak kuy sukuraat du benn kuy sukuraat deewagul kan moo wax dëgg ci ñoom ñaar lim ko wax dëgg la mu ne ko muxtadar la muxtadarikum la ci jublu mu ne ko loolu sa xalaat la te yonent bi dégg na arab xam na muxtadar mu xam na koy sukuraat xam na ku faatu waaye ala mawtaakum la wax te néewul mawtaakum sax baat bi mbooloo lay firi mooy seeni néew muxtadir nag kenn lay firi mu ne ko kon yow seetaatal li ngay wax say xalaat nga may wax waaye man waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa lay wax kon taxaw fii naan jàngal jàngal ku faatu alxuraan bi daala loolu moom seeni wax la waaye wuute na ak li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mooy li ñuy wax diine mbirum suñu boroom la bu ñu demee ba ne mutasawifoon yi dañoo wuute ak sunna ba noppi ñoom ñu fekk lu yonent bi digle ñu jóg di weddi loola ne baaxul jàdduwul kooku amatuñu dura taxaw na sax dañu jangalé sunna ma leen di wax ne leen ab dekk ngi ni bu toll ci nangami jooni hectare mbolo di fi yeewoo ay juma yu dul jeex ak i jàkka ñu fiy daje at mu jot di fi sant sun borom te dañ ko sañ ci uniquement pour dundal sunna serigne bi la la bi jaahi man haajara kha'il ilayha li ihya'i sunnatihi la wax ci tambali Matlabul Fawzeyni maa ngi sant mi nga xamne mo def ki ki gàddaay jëm ci dëkk bii di Touba mu gàddaay jëm fi ngir dundal sunna bis bu nu ma wanee dëkk boo xam ne dañ ko sañ ci mu toll nii ngir dundal sunna bu nu ma waxatee ci sunna ma gëm ko waaye fi léegi defuñ ko nag bay ba nu noppi man ma leen di wax sunna kon li nuy def lu wér la nañu ko gën di def sant gi nay wéy njàngum alxuraan bi nay wéy bu nu bu nu noppee nag taxawaat noonu ci suñu bopp nag santaat sëriñ sunu borom ci boole gim nu boole ak Serigne Touba nan nun bu ñëw dañ fay am ñaari tianti le Serigne Touba yalla bu wir waye bu noppee gimno santat yalla bu wir ci boole gim nu boole ak Serigne Touba ci lolu ma ngi nuyu waa diwan bi yépp abdullah di rafet lu baax taxaway bi ak jëf ji ak njambar gi di kontaan bu baaxa baax ci ni ngeen ko ubbé ci njangum alcorane mi ci waxtani ci yar bi ak pësif di ñaan yalla nu tàmbale ko ci bismillahir rahmanir rahim yegal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ta fi ay ati atat di def te depo ci ak Serigne Touba bis bi dal na ngeen xamne moy bis bi Serigne bi liggey yeli yonent bi waye na ngeen xamne moy bis bi Serigne bi wote ñu santale ko ci yalla yar yi rek fi nek jaamu sa borom ak liggeyal yonent bi kon batay li gennul abdullah Abdullahi wa khadim Rasul ndax sant xeet la ci xeeti jaamu yi ibaadaat ibaadaat yi gën a kawe sant benn la ci cant dafa bokk ci biir tawxiid yi ji nekk ci biir tawxiidul irfaan yi ndax ki gëm ni mënul ba dañ koo jëfal mooy sant ki ko jëfal rawatina cant gun jëmale ci suñu borom kon sant dafa duggaat ci biir tawxiidul irfaan yi kon sëriñ bi li mu woo day fi day day dugaat ca biir la waxoon ne adon ilal ilaahi bi tawxiidi wal fiqhi wa tasawufil majidi lafzu tawxiid nag dafa gàtt waaye daa dugal lépp te yonent bi sallallahu wax ne ni doomu aadama buñ ko joxoon àddina li ci biir nangami yoon benn lafzu alhamdulillahi buy dëgg ci moom matal na àq jooje sëriñ bi woonu at mu jot mu ñëw sant fi yàlla kon loolu nañ ci gëna a farlu assalamu wa rahmatullah jërëjëf Mbacke yàlla na ngeen fi yag lool te wër ñu ngi leen di ñaanal ngeen yag fi lool te wër yag sa mbokk mu baax mi nek ci biir Serigne Bara jaxde yalla ngeen fi yag lool ñu yag leen fe fek di yag fe am ngërëmal suñu borom ci yawlu khadim kon xamna soxna yi dañu nekkon di wajal ndiki nena nopi na sax kon bu ko defee dañ leen di yaatalal fii rek ndax fii lañ war a dresser pour teg fi xéwal yi bu ko defee fu waay nekk rek nga ñëw jige si buñ paree mën a barkeelu incha allahu rabbi mbàkke yal na ngeen fi yàgg lool ti muy sant ci cantu Sëñ Tuubaa gi muy sant yàlla ndax cant gi moom kenn ñoom mooy cant gi Sëñ Tuubaa di sant yàlla ñu tàbbi ci digg suñ ko doon mën a sant ay cadeau lii nag du lu rëy la ci yàlla waaye rëy gi ci yàlla ci suñu benn rëy ci yàlla yàlla moom dara rëy moom. waaye ñun ci suñu mbéy mi di yàlla ndax jëfee digal yàlla dafa rëy yàlla bu ko defee si baara nee na ñu ngi sant bu baax waa diwaan bi yëpp di ci jiital waa diwaan bi ak ndax fii ne booy sant da ngay jaar ca bunt muy seen bosom yi nga xam ne at mu jot ñuy bërëb bii. biir jotaay bii at mu ne bu ñëwee ak jàmm ca des borom màggal nag noonu la ko déggee noonu yëpp la ñuy màggale li fi nekk yëpp ci ay xéwal ak ay teranga ñu dajaloo di ko ngir jublee jàppale sëriñ bi ci bis bii nga xam ne gis nga woote benn ndimbal waaye bis bi képp loo xam ne bu bu dellu si mën na ci sant la sant borom daal di sàllaaw lu lépp lu ma am adduna ak alaxira bis bi laa ko am kon lu bépp murit am ci adduna ak alaxira bis bi la ko bis bi nag dara ëpp ci doole lii ñu def mu gerte dara ëpp ci doole te ñaareel sëñ bi daa waxoon ni ci tas si bu mootee màggal dafa am discours boo xam ne si biir daa génn ci pénc bi def ko. nga xam ne bu sant bi ñëwatee ku maanaam toog ngir mën koo def nga toog ci kër gi. kooku mënul naka toog ba lekk yaa sa njaboot waaye beneen bi ci des nag kon moom moo moo moo moo moo moo généralisé mooy def na ñaar yooyu ku mënul na nga sol soo xam lii war a bëri su ko toog nga ànd ak moom lekk. loolu rek moo taxoon mu ne di jaxal taxaam yi wasaraat yi yater ci xeet yi ñu ngi jaamoo yàlla waaye ñi def loolu xalima tënk bi dal aw yu fii ba ba ñuy tàmbaaj na xalima ji bu mu toog jiw yi kon màggal bi lépp lu ci waay def mënatu génn kees bu miski da ko war a def dana ko ci yéene tansiel na nga yëg ne tàbbi ci biir kon si baara ñu ne pir na ñu ngi a wërsëg yaatu lool ñu ngi leen ñaanal kenn ku ci ne boo fi jógee li nga mën ren bu déwén nii na loolu bu delloo ci wàllu sëriñ Saliou day day day ñaan boobu day day day day neex day neex gëm ndax sëriñ Saliou dana moom ñaan boobu day bàyyi boo gisee mu indi ñaan yooyu ndax

jamono ju ne fii ba saa yi taxaw saa boo leen gisee di nga xam ne kii moo fonk màggal saa bu ñu jëfee di nga ko xam ci seen wërsëg nga xam ne kii moo gën a fonk màggal ci seen dayoo xam ne kii moo gën a fonk màggal dama li nit di wut ci àddina yëpp mi ngi ci biir màggal ku la gën a fonk màggal moo lay gën a siiw moo lay ëpp daal ci yàlla moo lay ëpp wërsëg maanaam amul lu muy xëccoo te ki la gën a fonk màggal bi ëpp réew la ko. lii bi ci waat yow lii. waaw sëñ nee na mujj na jàkkaarloo moom. moom nee na moom moo gën a taal. kon tubaarkàll bi ci des it sëñ bi ñu ngi sant son Aïda Mbacke ak soxna Ndeye Ndiaye ak soxna Mame Pène ñu leen di sant bu baax ndax kër daan na ñàkk jëwriñ nag boole soxna yëpp waaye lim bi def na matériel te waxtu yi moo tax ñu jotoon a tudd ñooñu jiital leen ci soxna yi kër goo gis natt ñàkk ay jëwriñ waaw sëñ bi nee na ak jëwriñ yi nekkoon ci waañ bi doon taxawu benn yii ndax. waaw ak ñi bàyyi ko jaare ñëpp nga xam ne yeneen ci yoon ne sayyidul xawmi xaalimuhum mbooloo mu yëngu ko tekk digal dañuy génn mbooloo mooy sama mbooloo kon nee na ñi ñee ci wàññi ñun suñu biir boobu nga ko sara waaye ñun suñu biir bu ndéewoon ñi sangu sangu sangu suñuy sangu mooy ñi ci wàññi ngir la xëy kon la ko ñoom di wax kon jant bi daal naka la ak am gi ak seen yu bay ñoom ñi nga xam ne ñoo jógee jaari féete ci wàllu placement kon cant yi ñii koy def damaa bëgg ngeen xam ne ñii jot di cant yi ñoom seenu cant dafa neex ndax li tax mu neex mooy fii ne benn waaye mën naa ne ci màgg ba sant la nga di ko dàmm waaye da ngay xool ki la sant mooy kan xam nga ki la sant bu fekkee ni say saar yi dana ko jëriñ wala santee cant boobu du yem ak benn waaye ko def te am ngërëmal sëñ Seex jëf-jëf ci sax xëy na sàkkuwun ci ku leen ci sant waaye nag jëf jëf ba pare mu seet la te tegu ci wu yoon sa kilifa ñëw xool ko bëgg ci di la sant loolu lu rëy rëy rëy kon loolu moo doon kàddu yi ñu ngi jër jaajëfal ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu so soxna ami mun na jege si fii sëñ bi nee na mu jël daaj bu neex rek bu ko defee Mbàkke ñii nii soxna yi dañ leen di sant bu baax ndax xam nga ndakaaru nam mel ñoom ñii buñ mënee bàyyi te yëpp màggal gii ñu ñëw del seeni i xéewal def ko ci ba màggal teroo ba léegi ñu ngi siy dox bi ci wax kon ñoom ñu jara sant lañ waaw ñaanal leen ñuy yokk te ànd ak wér ñuy yokk te ànd ak wér sant soxna yéen ñëpp sant lañ leen taxawaay bi rafet na neen ko taxawoo nii rafet na yàlla na sax te yàlla na gën a dëgër barkeb Seexul Xadim ami zikar kat yi nañ ñëw jige fi nday ami nday ami wala nga dem ba fofu ami am micro la ilaha illallah la ilaha illa illallah إلا الله لا إله إلا الله la la suyu mas Tidun kogis babada Amul mas Nyabi botalo zaman Gisuyu mas Tidun kogis babada Tamba amul mas Nyamfi botalo zaman Gisuyu mas Tidun kogis babada senyubama Dinyogogi sebaa pada Tamba amuma Nyamfi boko yang zaman Gisunya gomas Dun kogis pada Moloma nyambi boko yang zaman Gisunya gomas Dunya kogis sebaa pada Dem nanda karu Dem gisuñu ko moom duñu ko gis ba abada Bamba amul maas ñun fi bokk leen zaman gisuñu ko maas duñu ko gis ba abada Bamba amul maas ñun fi bokk leen zaman gisuñu ko maas duñu ko gis ba abada dem na Ndakaaru dem na Ndakaaru gisuñu ko mas duñu ko gis ba abada amma amul mas ñu fi wokkaloon zaman gisuñu ko mas duñu ko gis ba abada bamba amul mas bamba amul mas ñam fi bokkaloon zaman gisuñu ko mas duñu ko gis ba abada la sant na xaadim rasulullah la sant na xaadim rasulullah yonen sant na xaadim rasulullah yonen sant na xaadim rasulullah cër na gërëm na xaadim rasulullah yàlla cër na gërëm na rasulullah ñun de sant nañu yàlla jërëjëf rasulullah ñun de sant nañu alhamdulilah tàmbale nañ ko ci bisimilah ñun ñu commencé di sant suñu Tuubaa di ko sant suñu borom di wax kàddu yi may wax man ba ñun ñëpp ngeen waxandoo ko ak man ndax anamu cant yi bu fort ngeen santee cant bu jëf dafa am cant bu wax bu bokk cant yi gën a mag yaa rabbi لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك باسم شيخنا خادم الرسول يلا ñu ngi lay sant sant bu yell di sa magaayu jëm ak magaayu sa nguur sa nguur ci turu Serigne Touba ci turu Serigne Touba yaa rab lakal hamdu yàlla cant ñeel na la kama yanbaghi li jalaali wajhika ni mu yelle ci màggaayu sa jëm wala azimi sultaane ak sa màggaayu nguur ñoo ngi la koy sant ci turu Serigne Touba tey defetu iblis defetu iblis xanaa du nit ñëpp a ci war a sant yàlla bis bi day ndamul Serigne Touba ndamul Serigne Touba xanaa du nit ñëpp war nañ cee sant yàlla. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom dafa ne dama laay yónni ci ñëpp. wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaas teg ci gën a wa maa arsalnaaka wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin alam moo ne yooyu muy mbindeef yooyu Iblis dafa bëgg yàlla toroxal leen yonent bi sax na bëgg yàlla yërëm leen yàlla di leen woo ci kërub jàmm Iblis di leen woo ci kërub ay yàlla ne wallahu yad'u ilaa daari salaam yàlla da leen di woo ngir ngeen jëm ci kërub jàmm lay tere këru jàmm la muy ñàkk a sant yàlla da ne waman shakara wax waman kafara bu ngeen baat yi ni mu bindoo sax terminaison yi da ko ci dégg waman yaskur fa innama yaskur li nafsi ku sant sa bopp ngay santal ndax day retourné si yow la ca topp dégg nañ sa ku santul da ngaa weddi ndax ku santul mooy nanguwul ne yàllaa def kon sëriñ bi dañuy woo ci tawxiid boo xam ne ñun xamuñu ko muy tawxiidu sant suñu borom nanguwaat ne li am mooma li defu mooma ndam li sëriñ Tuba am mooma sëriñ bi nee na billaahi faaraxtu nasaara séewali gis nga baat boobu ñu baree bari xamuñu li sëriñ bi bëgg a wax ne nasaraan yi pour yeewu woon la ñuy xamee ne mënul ci man dara. dégg nga xam nga ànd na ñoom moom ba Gabon ànd ak moom ba ba feneen taxalikoo gi sëriñ bi di wax bokkut ak taxalikoo ci jëmm ñoom seen xel taxalikoo naan ñoom ci xam ne mënoon nañ ko dara baatu mënoon nañ ko dara gis boobu lañ taxalikoo xam ne ñu mënut moo tax ne billaahi baaraam bi nasaara jéewal seen pexe ya tax ñu wax maanaam mën ma dara moom jéewal lañ tàqali ko moom lan lañ ko mën a lan mooy woo ko muuyu jeex na li ci des mooy dem ba mu neex ko mu bëgg ñibbi suñu ñibbi moo tax ñoom dem nañ ba nga xam ne sëriñ bi ne xalu safara ci ñoom ñu bëgg a waaxu ba fan ko jëlee woon ne ko fa teg te ñemeeku noo àggaat ci seen ba koy jël di ko fa delloo mu des natt yi suñ borom yi mu ko natt yi tax muy wax ne nattut géej gi ñaari muxaddima yi mu bind muy muxaddimatul xidma ak muxaddimatul kubra ñaari téere yooyu bokk nañ ci sababu nattut géej gi nga xam ne la taxoon mu des fa bay ñaan suñu borom dellu si boo xasida inna lazi farada alayka alquran la raadu nga ilaa maa yi mu ciy ñaanal dellu si loola kattu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 nee na sëriñ Bara da ko wax léegi ne ko ñam boo xam ñam boo xam ne ko tiim gis yàlla ñam bu barkeel lay doon. nee na bi ngeen ko defee ba pare dañu ko tiim ngir yàlla nee na loolu tawfeex la te nee na mën naa saafara ay wéré di garab nee na ñam boo xam ne ko tiim ngir yàlla mën naa saafara wéré di garab. sëriñ bi nee na kon tamit wàllu arkaas la waaw. loolu baax waaw sëriñ bi nee na mu si ñaan yàlla si amin nee na moom si ñaan yàlla si baaxu sëriñ Tuubaa suñu borom dox suñu diggante lori àdduna amin amin waaw kon bu ko defee yéen ñi tiim xéwal yi mu ngi leen a defar mbokk daal bi ñu ñu ñu barkeel. waaw. nee na tawat bu nit mën a am lii mën na ko faj. waaw kon nag xam naa ni fayal ñu loolu dinañu arrangé lool dinañu la teewlu bu baax.

ndax nga weesu Mouhamed mooy taxaw ak sama jaay man si yow laa bindu gaa may dañuy xeex. ak yoroon benn ay ànd. soxna Mbène nga koy dem jox ji nañ keneen ku ñuy wax ci bisim màggal bii suñu borom xettali leen ndax ay jaamu yàlla rek lañ ay jaam ak ñooy ñëw góor gi ñëw yàlla bii góor gi ñëw ñun jaam ñooy ñëw ñu ngi ñaan yàlla ñu ñaan ko juróom bu xettali ñu leen ba ñu dellu soixante sax jërëjëf kon kon kon papa papa ndaw yéen ñi nekk si wàññi santal ñëpp li nekk foofu am nañ ko bu baax. li gën a tàng yéen a ko yor a métti yéen a ko yor loolu Pape Ndao du bàyyi yal na ko yàlla taxaw yal na ko sëriñ bi defal ndam ndam yu kawe jox ba moo ba diwaan yëpp xam ko ak mbooloo ñu nekk si wàññi. sëriñ bi nee na bëgg na nag yéen ñi yor oto si soo leen paree ngeen ñëw ba si photo Mame Thierno Birahim bi ngeen def ay ay images yu rafet tasaare waaw yu rafet nag am tey jii daf sëriñ Tuubaa dama bëggoon yërëm ànd ak moom borom daal ba faw moo taxit ba muy def moom moo tax bëgg ngay waaw kon nag moo nekk si bu tàmbali moo nekk si bu bu ngeen a jëm de keroog bi sëriñ bi yanoo mu yoon bi ko ko waaw léegi nag ñu ngi sant tamit ñoom ñoom ñoom moo taal ndax moo taal jàmbaar loolu oto bi oto bi am def na presque quinze ans dix-sept ans kon xam nga waaye chaque année ñu bàyyi ñu jël doon ci dégg oto bi ñu ko jël doon ci dégg la ne dafa baax waaye doogam ak Pastef moo tax jiw bi la amante te gis nga bagage yi saa su nekk jafe te bu ñu sàggoonoon ba amul oto du del moom taal kese fi mu ne nit ñëpp lay doon ndax sëriñ bi saa su nekk dina am dara am gaay sëriñ bi nee na digal la nag ñu dama koy wax dégg sëriñ bi nee na oto bii moo taal jigéen daa ko ñëpp ci biir nee na daa ko ñëpp ci biir bu baax nghe là đau đớn không em luôn anh không gì vậy còn đây em xưng này đi lên lại rồi đã đớn con đi như vậy nhất đi xuống đi xuống cũng bạc nghe là các em nhất phải đi sang vài đau đớn cũng bạc không có gì vậy đặc biệt luôn đi gì Yıldan anlatarak Duruyor orada bir de şöyle. Onlar orada bir tarafı. Orada. cant yi ñu koy teg sa bopp ndax képp koo xam nga seen jëriñ maam borom nga képp koo xam yaa liggéey maam borom moo daan ay polyvalent ci fépp waaw Ibrahima Mbaye waaw jàmbaar la lool ñu koy ñaanal moom yàlla ko seen tubaab tax Ibrahima bi moom lépp di làmp ko bëri sa loxo yàggal la am seen làmp te comme que yàggoo ba léegi wax dëgg yàlla jàmbaar la jëriñ moom moom moom daa formé dem da koo forme mu dem ba forme nee ba moom bu nekkee zone bi yow am na fi nekk loolu léegi loolu dugal baax daal moom suñu borom taxaw loolu mooy nii ba si waa mooy lu mu ñoom ñoom ñoom mu dara waaw jàpp bi moom day yàq ñoom lépp lu ñuy dox ñoo ko jaayee ba si Malick Mbow ñoom waa si ñoom ñu ngi leen cent mille sax na boole ñoom ñu day boole waaw saa su ñu ñu ñu demee. Jërëjëf. Baax na. waaw. kon bu ko defee soxna yi tam émission bi moom moo ko ordonné bi moom ak tuuti ñoom ñoo ko wax dëgg yàlla ba nga ko waxee ñu def leen bu restreint bu restreint waaw journal bi magal benn kii moo ko yor ba pare wax dëgg yàlla liggéey bi ñu amul benn benn ma wax ma leen def ñu ci Jakarta moo ñu ci wax dëgg yàlla ñu dem jàmbaar lool ñu da am njëg wax dëgg yàlla moo doon baal ma kebe weer ak yàlla da ko day dem koy wax léegi vingt francs jox ko par exemple comme jàmm ko ñaan diggante si jox la doon ñaan waaw moom li jëm si biir ñu xam looloo ko waral waaw soxna yi dañuy Dakar bi suñu soxna kenn ñu ngi sant bu baax sabar kon Pape Sow kon soxna yi ñun ñu ngi leen sant bàyyiwul kenn jamono si benn yow dañoo ñëw takku sol seen i laxasaay seen mbéy mi nga def moom moo ko waaye wax dëgg yàlla fan fan fan fan yëpp boo àndoon jërëjëf jërëjëf jërëjëf. xool sa bopp taxal nga xoolaat sa bopp. nga xool sa bopp ngay dem ngay nekk. boo ko defar loolu moom lay gis keneen. sëriñ bi nee na. am ngeen sëriñ bi déglu leen bu baax seen wax ne ne yéen ñëpp am ngeen ay kër si biir àjjana nee na loolu sëriñ bi baax ma ko wax إن الذين ساروا بخدمتي ولو مديرا وصل جنة mais loolu mbokk sëñ bi ko. sëñ bi waaw moo wax mu jaar ci liggéey am nañ ay kër si biir àjà. waaw kon sëñ bi waaw. waaw. Babou moom moom it dafa yor man côté ñu boole ko lay def nga boole ba ko. am na ko si ji ak Kébémer ji moom tey dama ne dama ne mbokk la waaw moom jàmbaar. waaw yow maanaam jàmbaar loolu lépp loo xam soxla nga ko si réew da koy béy wax dëgg yàlla moo tax day béy bu ko set balaa ñuy yeewu ah jàmbaar la maanaam moom daa ko ci diwaan ñaaw da ngay jëlee ba diwaan bi ba dafa nekk yëpp dafa ay baax baax waaw daa war a fay de waaw dafa nekk yëpp dafa ay baax baax mais nag noonu mais mas baaxul borom day partagé wu si biir mais gëstu ñu si li bëri sëñ Mor. Julle sëñ Mor sant nañ la yow bu baax. yow yaa seen baaral kii bi teg seen saa si ñëwee fekk seen si baax yow jàmbaar te moom. moom daal moom bi bàyyi ko Mbacke Ba di ñëw wut si tànk yéen si yéen si Touba. ba mu dikkee fekk na gouverneur wàcc en en dégg waaw léegi ba mu dikk ba mu dikkee moom borom ndaar fekk na gouverneur bu wàcc ba gouverneur bu wàcce nag coow la am ca biir bureau ba moo tax gouverneur bi daal laaj loolu lu mu ñu ne ko mara bi nga convoqué moo fi yebal si ab raqam ba gouverneur bi ñëwee ma Abdouloo bi nga xam ne moo doon jaxaseeg sëñ bi ak tubaab bi moo doonoon interprète bi maanaam moo doon dox diggante ak sëñ bi ak tubaab bi borom daar ak tubaab bi. ba borom daar indee lettre bi tubaab bi daal koy talal ab palaat ne ko tegal fii lettre bi mu ne ko ka ma yónni mbokk yi fitug borom daar rëy na dana ko ka ma yónni sama loxo ak sa loxo wax nga xam ne foofu mbokk jamono jooju tubaab yi du du ñaay caaxaan daal nga xam ne ñoom mun nañoo dugg ci ab dëkk rey waa dëkk bi yëpp te dara du xew. jamono jooju ñuy waxuma senegal waaye Afrique Afrique nañu yilifoon ñoom tubaab bi doomu soxna yëpp tubaab yi not leen kasi nekk la tubaab bëgg-bëgg tubaab yi ci ngay dox soñoo doxal leen loo xam ne du ndigalu tubaab bi nga xamni jamono jojo borom dara bama nan bama nan tubab bi ka ma yónnee ne sama loxo ak sa loxo lu nek mënoon na ko say fekk te boobu ta bobu borom daaru 30 ans la am fanweeri at kep la borom daaru am dal dal dem sa kagn nan borom dar borom dar dal kay dal yobante yobbu yobante ak seigne tubaab nga xamni borom daaru muhti ganna ba mu jébbale lettre bi neena ma abdoulo mi nga xamne mo doon doonoon prêtre bi sa moy waxante ak tubab bi ma abdul lo la ma koy wax du ko wax tuba bi ndax wax tangale ya wax tuba bi borom daar muxti dal di gis tambale manam kanam tuba bi tambale ñang mu xamni kat kay wax mom wax ko ko ci la borom muxti ak fit gi ak fulla gi dal di genn ci bir bureau ba dal di seeti benen interprète mu ñew mu daal kay prêter neena bako ko di prêter nak ci la tambale gis kanam tuba bi tambale gif ci la xamni kat la ma abduloo doon wax bokk tak la ma naan la wax tuba bi leg ma abdul mom nak fekk na commandant bi yabal na ay soldats pour ñu jëli sëriñ bi léegi borom daar mu daal di xamoo tubaab bi kat lettre yi ngeen dafa yóbbante benn daawul agsi bii nag ba mu agsee nag ci la mu yónni ma ñooy si tontal li borom daar daana tubaab bi moom ni na ñëw bu may dem muy ñëw fekk boobu commandant bi yabal naa ay soldaar soo xam ne nañ leen fu ngeen fekk sëriñ bi da ngeen ko jàpp indi léegi nag borom daar muxti nag ci àjjuma ji ba muy ñibbi Mbàkke Baari Jolof ngir dem wax Sëriñ Tuubaa xibaar bi ma Abdoulou muñ ko boole loon doon yéexal yoon bi ngir mën a réeral borom dara ci àll bi ngir tubaab bi dem fekk sëriñ Bàkk baar Baara Jolof mën a mën a songu sëriñ bi. loolu dafa bokk ci pexe yi nga xam ne ma Abdoulou doon na ko pexe ngir borom daaru bu mu àggi borom daaru nag bu leen fàtte ni moom jëmmi suñ tubaab lay doxe moo tax Cheikh Moussa nee na ceen Cheikh Moussa ba muy tagg borom daaru ba mu naan jëmmi nit ji koy malaayika ceen bi rafaate wuute na ak Moussa Ka kon fitig ak pas-pasam ak suñ tubaa def gumu mu des si ak suñ tubaa sotte gumu mu sotte jëm ci ceerno ji mo tax ciene mun a jàkkaar ak borom ndar ne ko kama ma neena sama loxo ak sa loxo ta jamono yi tubaab bi dafa dafa xébon africain yi nit ku ñuul ni mo na borom daal mo tax ba mu génne nag wutali Mbàkke Baari Jolof ca guddii gogo nga xam guddii bi ma ak ñom jëriñ ak ñu bari ku melni ni bi di sikarlo mbok talibé yi ngir di fàttaliku jéego yi borom daar yoy mu bayiko ndar dem dem dem dem Sëñ Tuubaa guddi borom daar muxti nee ba mu wàccee Louga damaa ñëw kër sëñ kuñ naan sëñ Omar Gumba la ba naan ne ko ndax mool bu ñuy yofal amu fi ma mën a dem Mbàkke Baari jolo mu ne ko am na mool bu fi nekk boo xam ne yafalu ñetti at la talu taraf borom daaru muxti ci la daal di war ca mool ba daa di wëdali Mbàkke Baari jolo nga xam ne maam loo doona ko bëgg a réeral ci àll bi waaye ilmul nujum bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa jàngal na ko borom Daaru Muxti ci la borom Daaru Muxti daa tettaloo ci biddéew yooyu bi nga xam ne moo tiim këru daaru daaru Mbàkke Baari Mbàkke Baari Jolof gi borom Daaru Muxti ci biddéew bi la teewloo la la la tettaloo ba këram mi agsi Mbàkke Baari Jolof ba muy agsi nag fajaru samedi bi fekk na Sëriñ Tuubaa julli si jàkka ja ba génn daal laaj mag ñi ana Ceerno ñu ne ko Ceerno ak seegul te mbokk yi fajar googu da doon taw ci kow borom daal la fanaane taw ba bërsëg loolu jar naa bàyyi xel ba sëñ bi génne si jàkk daal la cerno mag ñi mag ñi ne ko cerno dikkagul sëñ Tuubaa ba muy dem ci dugg ba muy dugg ci kër gi rek ci la tudd yàlla ca kaw daane de suñu borom de araamal na sama jëm ñi may tabbiwaat ci kër gi daal génn lu yi ci la borom daaru egsi ba borom daaru egsee bëgg a xibaar sëñ Tuubaa la xew sëñ Tuubaa dana ko cerno mu ne ko mbàkk mu ne ko dara motumaa wax daanaka biig ba nga taxawele borom ndar di waxanteeg moom xoron ndab yaron dox soron tanki man suñ doom ngay seen le nak sëñ touba ci fajaru samedi gogo fekk ci aljuma ja ba mu yone borom dar am na xas dëggum bin dëngee ko asbunallaahu nixmal wakiil di ci sant suñu borom di ci gañ suñu borom di wax suñu borom moko ar moy hamitu man yahsimuni min ad minat daral min kulli seytaanin wa jinnin wa basar sat naa yàlla mi nga xamne moma sangé moma sange ci bép loru seydane ak loru doom adam ak loru jinné léegi ba borom daara mukti dikkee nak ci le seigne Tuubaa war ci kaw fas bi ci fajar samedi gi daal génn wara dajal dajale nasaraan si jeewal ba muy dénk njabot gi dané mag ñi dénk yalla, njabot gi dénk na len yalla ak yónni sansam ak seen cerno seigne Tuubaa daan mam cerno boo mënee dëkk Mbàkke Baara Jolof gii bu jàppandul fépp soobu yàlla na nga fa dëkk ndax sëñ Tuubaa xamoon na ni bis bu génne rek borom Daaru Muxti nañ ko fa fekk daara koy génn dëkk ba daal taal dëkk ba loolu xamoon na moo tax mu teel kaa wax ne fii mënut a jàppandi fu jàppandi rek na nga a dëkk ba sëñ Tuubaa génnee nag këram Mbàkke Baara Jolof fukki fan ak juróom-ñett di bis bi ñu nekk dem liggéey yéen bi salaa salaam moom la bind wax ni xarat ya mab satti saamina asar li xidmatil muxtaari fii sëxri safar man sëñ Tuubaa génn naa sama kër fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar dem liggéey lu yonent bi salaa salaam mi nga xam ne moom lañ tànn. léegi ba mu dikkee jeewal sëñ lañ jot dagana mi ngi nettali nee na sëñ mi ngi fa agsi waxtu tisbaar ba fa ba fa agsee waxtu tisbaar sëriñ bi satal bi sa instant day jàpp ndox mi daal di jeex ñoom mag ñi seen ndox daal di jeex amuñu fu ñu mun a wutee ndox nee dañoo jékki-jékki gis génn jëmm joo xam ne. kenn xamul fu mu bàyyee ko nee na yenn lu mel ni comme saaru ndox nee na ba mu dikkee boo jub si leen ci nañ ko tàllal ndox satalab sëriñ bi ci la duy satalab sëriñ ba mu fees nee na ñoom ñi nga wax ak moom waaye faalewu leen ndax moom la muy wax ñoom xamuñu ko ñoom tamit lañuy wax koo xamu ba ñu duyee satala sëñ ba pare ñoom ci la ci la kooku daal delluwaat fa mu nekkoon gisaatuñ ko sëñ bi neen nag ba mu sëlmalee tàkkusaan ci la tubaab bu ñëw daal di jublu sëriñ bi sëñ bi neen ci laa yi daal di jàng ñeent fukki juróom fukki la tubaab bi daal di dellu ci ay yitteem sëriñ tubaab daal di waat ni mooy billaahi faaraqtu nasaara jéewali wa xayri xat an bi naata naawali mooy giñ naa ni ci jéewal gi laa tàqal koog nasaraani ndax sëriñ bi wax na ne tukki géej gi lu ko waral mooy yàlla damaa namal dara yoo xam ne ku dul mën suñ tubaab amoo ko ak namal ma dara joo xam ne ci laay rammee ba liggéey sama ñoñ ak dara yoo joo xam ne ci laay làqee garaatu liggéeyal yonent bi salaa salaam moom la bind wax ni sababul hibati anna allaha arada an anala minhu jaaha wa an akuna saafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi mooy li sabab tukki géej gi mooy yàlla damaa nammal dara joo xam ne ku man amoo ko ak dara joo ne ci laay rammee sama xeet ak dara joo xam ne ci laay làqee garaatu liggéeyal yonent bi salaa salaam Sëriñ Tuubaa gannaaw bu mu àndalee nasaraan si jeewal dafa wutali kokki sëñ Tuubaa bu mu wutalee kokki nag fa la nasee téeram boobu ñëwee asmaal ahlu badrin fa la xam nasee daal di koy àggalee ndar kokk googu sëñ bi dafaa yendu ba mu fa yendoo nag daal di wut si Louga sëriñ ba mu wut si Louga ci la duggee saxaar ànd ak tubaab bi daal di wutali ndar wax nañ ne ndar sëriñ bi am na fa 37 jours jàpp 38 jours ndax fa la sax ca weeru safar ba jeex fa la sax ca weeru rabiul awal ba mu desee ñaari fan nag ci la jógee ndar daal di ñëw si Ndakaaru sëriñ bi nag ba mu demee ndar nag kuñ daan wax Ahmadou Khouraysin këram la sëñ ba dal ba mu fa dalee nag ba mu xëyee la dem ca biir biro biro ndar ba mu fa demee waxtu yor-yor sëñ bi daal di jullig jullig yor-yor mu doon ñaar ràq yu gudd yoo xam ne mag ñi nee nañu sëriñ bi ràq bu njëkk ba sootu Baqara la sa tari ba mu jeex ñaar ràq ba sootu Al Imran la sëriñ bi ba mu jeex ba mu sëlmalee nag. dal gis tuba bi dan am na ko ci yeen ñi tuba bi ñom xam nañ ne sëriñ bi deful leen sëriñ bi deful leen dara ndax togn ko ak bëkka bëkka bëgg ak ak bëgg takal ak mbolo bi mo tax ñi mbolo ñi kay convoqué bëkka kaa way deful defu leen dara ndax ñom leneen tax a jóg ak tax a jóg bi bokul mo tax ba saxé so lol nak ñi dal daan kat buñu ñu jigee atté ko. du ñu am ak lay ci kawam ci nañ daal di convoqué 83 personnes ñoo xam ne ay sëriñ nañu woon ca jamono jooju. ba leen convoqué ku si nekk la la tubaab bi wax da nga daal di nangu ke njëkk bañ mooy sëriñ Màkka Birama Xaali moom la tubaab bi njëkk a mu daal di koy sant la koy sant kooku daal bañ mu daal di koy boole gaynde ga bañ matee ñett sëriñ bi daal di xam ne kat bu seetaanee ñii nañ jeex. nga xam ne Sëñ Tuubaa moo doon ak quatre-vingt-quatrième personne Sëñ Tuubaa xam ni kat bu seetaanee lañ jeex ci la Sëñ Tuubaa teew sa biir bureau ba ñu daan na ko si topp daan na man maa si topp la Seex Siire Baabu wa ba muy woy Sëñ Tuubaa dana ko a seexu ahmadun nihmatun awlaaha haazil xalaayiqa kullaha mawlaaha dana yow Sëñ Tuubaa xéewal nga ci mbindeefu yàlla yi kon xam ne xéewal nga ci mbindeefu yàlla yi yow rek yaa mën a xettali jàmm ñu bisu keroog ndax bu Sëñ Tuubaa seetaanoon ñoom ñëppay jeex keroog moo tax mu daan ne man maa si ba sëñ bi toppee nag tubaab ba ñu dencee sëriñ bi ndar nga xam ne sëñ bi am na ba 37 jours jàpp 38 jours dañ doon xool mbirum sëriñ bi lan la ñuy dogal ci moom. léegi nag ci la yàlla daal di teewal seen xel ñi ne dañuy rey sëriñ bi ñi ne buñ ko reyee kat musiba na am ñi ne dañ koy tëj fii ndar ñi ne buñ ko tëjee ndar mboolem mag ñi nañ ñëw dëkk ndar ñoom ñëpp ci daan nañ ñoom ñëpp ñu dëppoo ci ne dañ koy génne yóbbu ko ci réew yu soree. sëñ Tuubaa nag ca ndar googu fa nosee asiru maa labraari xiina asiru nga xam wax na ni asiru maa labraari nga xam ne man sëriñ bi maa ngi dox ànd ak waa ahlu badrin daan na waxtu ba may dox di ànd ak ñoom ñoom nasaraan si ñi ngi njort ni man ab prisonnière la nga xam ne asiru bëy yu njëkk yi ba ko sëñ Tuubaa bindee Ahmadou Ndiaye maa bëy la ko jox ne ko yaay sama seede te boobu Ahmadou Ndiaye maa bëy mag la serigne bi di garanti dundam dal nako feek may dem ba dumay jëli si ndax yaama yaay sama seen serigne touba dal di bàyyi koo ndar dal di wut si dakar ba mu wut see ndakaaru nag moom bi neena ma fi agsi bisu bisu sa nga xamne bobu serigne bi neena ma ngi ko ma ngi woor kooru gàtt nge serigne bi nee na maa agsi ndakaaru suuf nga xamne jamono jojo so do baxar jàggaale imran ci bi neeg ba moom la wax ni saa moo fàttalikoo ñaari guddi yooyu ma fanaanoon ca Dakar damay bëgg a jóg wut ay ngànnaay jàmmar ak tubaab waaye yéen sansan moo ne ma jégal leen isa sakartu zalikal madita wa zalikal amira wa sabota tarat ilal jihadi bil armaahi nafsi walakin zabba anil ñaari guddi yooyu ma demoon ca damay bëgg a jël jóg jàmmar ak tubaab yooyu yéen sansan moo ne ma jégal leen léegi sëriñ bi nag moom fa defee ñaari guddi ba ma xëyee ci samedi bi nag ci la daan duggee soobu ci yoonu géej gi sëriñ bi ba mu jigéen di soobu yoonu géej gi dafa wax ni ci gaalu loote loote nañ ma njëkk a dugal léegi gaal loote gi moom yóbbu ca gaal gu mag ga sëriñ bi neen na ba ma àggee ca gaal gu mag ga nag fa la ma yàlla xamalee yow Ahmadou Bamba yaay liggéeykatu yéen bi salaa salaam mi xam ne mooy baram Madina àllama ni rahmaana fii safina bi ànd nii xadimu zil te liggéeyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sëriñ bu ñuy wax liggéeyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sëriñ Tuubaa amul ku muy te ku ci liggéeyu yonent bi sallallahu la jëriñ di wax sàng naan Sëriñ Tuubaa autre chose la ci ci côté yëpp la nag ndax dafa wax ni xustu xayaatan laa turaali xayri muxsijatan baanat li usni xayri man Sëriñ Tuubaa làq naa dund goo xam ne duñ ko gis feneen ci man rek la dund ko am moo tax ci liggéeyu yonent bi sallallahu mu am ndax dafa wax ni xusóor yi xalat wala ëx doan yi li mat xil lesi ma madiru xasir man suñ quoi samay kër tasaaroo na tàqale nañ maag sama njaboot ngir la ngir tagg gu may tagg yéen bi sansal moo waral loolu daal nga xam ne gaynde gi danaan kan ngeen fi mu a gis koo xam ne tagg yéen bi sansal wala liggéey yéen bi sansal moo tax ñu génne ko réewam tàqale kaak njabootam loolu suñ dubaa nga koy gis moo tax mu ne mulkul anil baaxil xadim jaalani asna xadim li man lahu fadlu yudum wa saani fi xidam nee na yàlla moo ma def ma doon maanaam may asna xadim maanaam mboolem ñu ñuy tuddee liggéeykat yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sëñ Tuubaa nee maa seen asna maa maa sa gën a féete ko maanaam maa seen jëwri nga xam ne wax na ni man zannani xayra xadimil Mustafa fa innani aqdimu bi Mustafa aqdimu ila duxulil janna daaril xarrale wal muna wal minna man zanna annahu yakunu abada yurdi billazi ka xidmati bada nee na képp koo xam ne njort nga ni man Sëñ Tuubaa lenn laa dul liggéey kat yéen bi saa salaam Sëñ Tuubaa nee na ab dof nga daana dama koy liggéeyal ba kenn mooy dugg biir àjjana na benn nit yàlla mag bu ñu tuddee Cheikh Youssoufa bun Ismaïl an-Nabahani nga xam ne ifan la nekkoon doonoon tàggkatu yénub saa sallam yénub saa sallam daan ko dikkal waxtu bu nekk bis nag dafa laaj yénub saa sallam ne ko ndax lu ma lay tagg nii am na kenn ko la koy tagg ci kaw suuf yénub saa sallam daan ne ko am na ku ñaan Ahmadou Bamba la mu wax ci man asakaam waxoo ko ci man loolu mooy man zanna annahu yakunu abada yurdi billazi ka xidmati bada képp koo xam ne njort na nga ni lu ma liggéey yonum saa sala am na kenn ko liggéey sëñ Tuubaa ne ne yow moom moo ne yonum saa sala moo dem fa suñu borom sax ci yàlla mën suñ doomu noonu ak liggéey katam li wax ju rëy la mbooleem ñuy liggéeyal yonum saa sala ñooñu seen coobarey bopp la ñoom ñoo coobarewoo liggéeyal yonum saa moo tax ñoom xaadim nañ leen wax waaye xaddimiya gi nga xam ne suñ tuwaa moom la amee loolu lu yun sansam sàpp te yàlla la moom la bind wax ni raama rasulullahi min ilahi kaw nii xaddima wa abdullahi yéen sansalam moo dem fa sunu borom sàpp yàlla mën suñ tuwaa mu doon liggéey katam ak alal na si talaba kaw nii al moo tax mu ne mboolem ñuy tagg yéen sansalam suñ tuwaa neen maa sufeeri kaw ndax gis nañ ne ba muy dem ci gi ndax ku ñu ku ñu tëddee anas ibnu malik liggéeyal na yéen sansalam fukki at te nee na yéen sansal mosu kaa wax li tax li nga def nangam moo tax suñu doom muy nem ci géej gi dafa xeme moon martabay anas moo tax mu ne wajaxal maqaam yi maqaama murda anas yow yàlla nag ma may darajay mu dem ba si biir mu daan ne surtout xadimal Moustapha mista anas yàlla mujj na maa def ma mel ne anas nga demaat ba si biir mu de mu daan ne bara anil xuduus min kulli tanas wa inna xayril xalqi jaawasu anas yàlla moo ma laabal ci bépp ayib waaye bu ñu demee ci ngën nga yónni bi sallallahu alayhi wasallam man suñu doom maa fa jiitu anas mu daan ci biir tagg yónni bi sallallahu alayhi wasallam radaytu anil baaxi wa an xayri xalqihi wa fi maqihi jaasu gaaban wa xasana man suñu doom gënaloon suñu borom lu fi des dana fi jóg ak yónni bi sallallahu alayhi waaye ji tagg bi may tagg yónni ci laa jégee kaax bu ak xasaan te suñ tubaab wax na ci raaya wax ni kaabun wa xasaan wala buusayri xat baron wa kulluhum seexu nuurun wa asraar nee na ñoom kaabu ñoom xasaan taggañ naan tagg yéen bu sansam lépp ay leer la ak i mbóot waaye man suñ tubaab si taggañ naan taggee yéen bu sansam ci laa leen jéggee ñoom ñëpp te ñun jàpp ne njort nañ ne ñun képp ku jug di ñaan bëgg a bokk ci waa Badar am na ñoo xam ne jàpp nañ ne loolu lu jomm la ta nekk mu sax mustaxil la dañoo jàpp loolu lu mënta nekk la fànn jamono ja saxaaba yi daan jëf jamono jooju wëy na waaye mbirum daraja loolu ci coobare yàlla jël aju ndax yàlla moo wax ci i innal fadla man yasa wallahu zul fadlil azim yàlla dafa sama loxo la nekk man yàlla maa ngi seet ma neex ma jox ko ko waxul waxul waxul diw moom ma neex na moo koy jox ku ma soob ma jox ko ko moo suñu borom la soob mu def nii mu def suñu Tuubaa nii suñ Tuubaa mel suñu boroom la soob moo tax mu ne baana li kulli man ko wilaaya kaw nii li xaaliqil baraaya aaya maanaam mboolem ñi nga xam ne am nañ cër ba seen borom ñoom ñëpp xam nañ ne man suñu Tuubaa ab kéemaan yàlla ak la asu ko fii kaw ni jaaral ba di aaja kaw ni mu dox suñ Tuubaa mu ci biir bota ba dafa wax ni ba may soog a dugg ci bota bi nañ maa dalal ci néeg bu baax léegi ab diir kilifaak gurbata bi daal di jot lettre boo xam ne dafa daal tàng ci sens yi suñ Tuubaa ne néeg bañ ma dalaloon ñi daal ma fay génnee yóbbu ma feneen suñ ne na barab boobu ñu ma yóbbu na maa jékki gis aw nag boo xam ne xaw ma fu mu jógee wut si ci biir bota bi sëriñ bi nee nag nag ba mu jógee wuti ma rek daa mel nañ ngaa saxal ay laax mu daal di may fare fare kaw jëm kaw moom la musaa Moussa naan amoon nañu nag moo xamante ne bii jàllaw niin mooy bañam boole na na on nag woowee mu jàll ak borom Tuuba moo tax sa biir la Cheikh Moussa anaan amul kee ànd ak nasaraan bi juróom-ñaari at yu mat te yàqu te yàqu ñu taw yi dem ko dul yow Sëriñ Tuuba xam ne tubaab yi ñoom boo xoolee seen xeeti caay-caay ñoom fa nga dëkk duñ la fa faagaagalee yóbbu la si réew yoo xam ne bis boo fa demee say mbokk da lay noppee dégg bët. moo tax sëriñ bi nee na ba gaal gi dekkee rek ku naa kii de laaj la leneen diggante Ndakaar ak Conakry fa la julli géej gi xewee Sëriñ Tuubaa nee na boo demee ci waxtaanu sëñ Moustapha Lo mi nga xam ne mooy doomu siñ Daa Abdourahmane Lo nee na suñu Tuubaa julli tàkkusaan la julli ci géej gi sëriñ ba waxtu julli jotee tubaab dañoo dikk ne ko kat yow yaa ne doo tooñ sa borom te doo tooñ sa morom te boo jullee sunu bota tooñ ñu te boo julliwul tooñ sa borom sëriñ Tuubaa daal moo tax gaynde gi nee na julli ndar julli géej Bàmba la woon Bàmba la woon kenn du fi naan sa la mbaa sa la woon sa la woon julli ndar julli géej Bàmba la woon Bàmba la woon julli sa géej Bamba la woon kenn sa maam la mbaa sa baay la sa géej Bamba la woon Bamba sa maam la mbaa sa baay la sa baay la julli sa Ndar julli sa géej Bamba la woon julli sa géej bambala woon bambala woon kenn du julli sa géej Bamba la woon Bamba la woon kenn du fi naan sa maam la mbaa sa baay la woon sa baay la woon julli bo julliwul ton sa borom te bo jullee suñu borom ton sa morom serigne touba yeesal ak njàpp daal di ñëw ca parenteelu gaal gi dari di waxante ak der bi ne ko bu la boto bi raw ben yoro serigne touba dari der ci ndox mi serigne touba dari ak der nga xamni fofu lam wax ne wasitu bi rabbil arsi sil juudi wal afi maal Moustapha wallaahu li muxdun safi nga xam ne bisub keroog yàlla képp rek la dëgërloo bisub keroog ndax Sëñ Tuubaa nee na man gi ba may cëppilu ci géej gi xaw ma bu may demee lu may fekk ji xaw ma lu may fekk ji ci géej gi.